الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñaari weer yu ñu nekk yépp xam ngeen ne dafa am benn xew-xew benn xabaar bu am ci sunu biir réew mooy dafa am kenn ci ñi ñuy wax ne ay borom xam-xam lañ di jàngale ci université Cheikh Anta Diop daal di yëkkati ay kàddu jëmale ko ci lislaam yenn yi sunu borom la ko jagleel lenn li alquran la ko jagleel lenn li sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam la ko jagleel waaye xam ngeen ne événement yu mel noonu ak xew-xew yu mel noonu bu fekkoon ne jullit yi peeg nañ seen diine xam ko bu baax danañ ci jële ñaari mbir bi ci njëkk du nekk ci ñoom mbetteel ñaar kenn du am fit pour def ko kenn du am mbetteel lu tax fa inna al harba ala al islam laysat harban jadida wa innama hiya harbun qadim mustamir bada'at bi bi'sati al mustafa sallallahu alayhi wa sallam xeex bi ñuy xeex lislaam tàmbaliwul tey xeex bu yàgg la ba yàlla yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam la tàmbali te borom bi moonu ne day continuer mustamir la wax day continuer kon su fekkoon ne xam nañ sunu diine du nu bett ndax ku xam diine lislaam xam ne ñu koy xeex du nu noppalu ñi ciy wax du nu noppi keroog ba alquran tàmbalee wàcc wa qad taarradu linnabi yonent bi la njëkk a wax ci moom ay wax wa taarradu lil wahyi ñu song li wàcc ci moom te mooy quran comme li waa ji song quran nii wa taarradu lil muminin ñu song jullit yi daanaka lool rek la waa ji répété waat waaye du nekk mbetteel lu tax ku xam waa ji xam sëriñam xam du nekk mbetteel kan mooy sëriñam Senghor ancien président de la république Sénégal ki demoon Rome ci kanamu cardinal bi ñu ne ko yow en tant que chrétien nekk président de la république jiite pays boo xam ne quatre vingt quinze pour cent musulman lañ xanaa munoo la na def ay chrétien mu ne leen munuma ko de waaye dinaa fexe ba ñu nekk ay mauvais musulman ay julit yu bon ku mel noonu bu jëlee nit jàngal ko ba kooku gëm ko di tuddee boppam man Senghoriste la kooku lan la war a wax ci lislaam ab Senghoriste loolu moo tax mu ne alquran culture grec la loolu moo tax mu ne fatiha am na avant quatorze siècle looloo tax mu ne alquran dafa am fu yàlla juum looloo tax mu ne yonent bi jàng na dañuy wax rek waaye jàng na looloo tax mu ne laylatul isra wal miraj isra am na waaye miraj amul point yi la waa ji cité mbokk yi ci yàlla subhanahu wa taala sunu boroom wax nañ ci ci quran ci suratu sadd borom bi tabaraka wa taala mu ne wa ajibu an jaahum munzirun minhum wa qala alkafiruna hadha sahirun kazzab borom bi nee na nit ñi de dañoo yéemu dañoo waaru lan moo waar nit ñi kenn ku yàlla tànn yónni ko ci ñoom mu ñëw di leen waar moom moo ñëw ci ñoom bi waa ji ñëwee ñoom nan lañ ko teeroo ñu ne saahirun kazzab njabarkat la fenkat la septième siècle la aaya yi doon wàcc ci waa Makka ci ay nit ñoo xam ne ay ceddo lañu woon xamuñu diine jànguñu waaye ñoom nan lañu teera woon yonent bi waaru yéemu naka la nit ñemee taxaw ñëw naan yàlla ma yónni kon wa qaala alkaafiruuna haada saahirun kazzab kii de njabarkat la ñenn ñu ne déedéet kii fenkat la su nit taxawee naan yàlla ma yónni kon kenn dafay fen kon ñooñu moom loolu lañu waxoon ñeneen ñi yàlla ne ci suratu duxaan summa tawallaw anhu wa qaalu muallamun majnun yàlla mu ne ñenn ñi yonent bi da leen dajale wax ak ñoom ba pare ñu won ko ginnaaw du muuyu ñu ne leen lu tax ngeen dem ñu ne leen muallamun majnun kii dañ koo jàngal ba pare bañ ko jàngalee ba pare mu jële ci ak ndof kii dafa dof ku ñu jàngal ku dof la ñeneen ñi borom bi nettali ci suratul anbiya ñoom lan lañu wax bal qaalu adgaasu ahlaam ñu ne lii léeboon ak lëppoon la adgaasu ahlaam ci arab mooy gént goo xam ne nit mënu koo firi loolu mooy adgaasu ahlaam ñooñu loolu la ñu waxoon Qur'an kon waa ji bu ne alquran culture grec la ak ñi ne woon démb alquran atagaasu ahlam benn la même dafa répété waa rek li maamam yi waxoon démb maamam yooyu moom moom lool rek la répété ñeneen ñi ne déedéet du atagaasu ahlam de bal iftaro moom moo ko sos moo ko créé ay fenam la moom yonent yàlla muhammad ñeneen ñi ne déedéet bal huwa saa'ir déedéet kii woykat la poète la lii mu wax ay poésie la yamuñu foofu waaye ñu ne fal yatina bi ayatin kama ursila al awwaluun su fekkee dëgg la yàllaa ko yónni mais na indi ay kéemtaan na indi ay kéemtaan comme yi Muusa indi woon yat wa bu ko sànnee mu nekk jaan bu ko dóoree ci géej gi mu xar na indi kéemtaan kon ibrahima mi duggoon ci safara si na indi kéemtaan comme isa mi doon dekkil ñu dee na indi kéemtaan comme yusuf mi ñu dugaloon ci teen lu nu fàtte mooy lii yàlla jox ko mooy quran mooy mujiza bi gën a rëy bi yàlla jox doomu aadama ci kaw suuf tey buñ doon laaj ay laaj ñu ne ana kéemtaanu yonent yooyu yàlla joxoon yonent yi est-ce que yatu Moussa mu ngi fi ba léegi tontu bi mooy déedéet est-ce que Isa kéemtaan bi mu doon def mu ngi fi ba léegi dekkil ku dee loolu nekkatu fi waaye kéemtaanu yonent yàlla Muhammad moo ngi fi ba léegi moo leen jaaxal loolu moo tax ñu ciy wax wax yi mooy Qur'anul Karim septième siècle la ko yàlla wàcce yàlla lancé défi am na fu leen yàlla wax ne indi leen benn aaya indi leen fukki aaya indi leen lu mel ni moom ba fii nu toog kenn indiwu ko borom bi tabaraka wa taala mu ne loolu ñu wax ci alquran wax ko ci islaam loolu la ñu wax yeneen yonent yi bi leen yàlla yónnee kazalika ma ata allazina min qablihim min rasul illa qaalu saahirun majnun borom bi tabaraka wa taala nee na yeneen yonent yi nga xam ne maa leen yónni woon ba ñu ñëwee la gaaya tontu mooy illa qaalu wax nañ saahir aw majnun yonent yëpp wax nañ leen ko yonent bu mos taxaw ne yàlla mu yónni rek gaay yi neen nañ la yow njabarkat nga wala ñu ne la yow fenkat nga kon nag suñ ko waxee yonent yàlla muhammad du nekk mbetteel borom bi ne fa in kaddabuuka faqad kudiba rusulun min qablik jaa'u bilbayinati walzuburi walkitaabi almunir borom bi ne buñ la weddee yow muhammad xanaa yëgoo ne weddi woon nañ yeneen yonent yi yàlla yónni woon ñooñu indi woon nañ ay lay yu leer indi woon nañ ay kayit yuy wane ne yàlla yónni moo leen yónni waaye indi woon nañ ay téere yu leer mais terewul gaa yi taxaw wax leen comme lu mel ni liñ lay wax tey gis ngeen moo tax sunu ñàkk a peeg Qur'an sunu ñàkk a déglu Qur'an looloo tax chaque instant dañuy am mbetteel ab yéeféer bu yaree jullit ba mu màgg ab yéeféer lay doon sikk nekku ci ñi ngeen di gis tey ñépp di wax ci Qur'an lu nu war ta wax wala di wax ci islam lu nu war ta wax wala ñu koy bind doonte ne ay turi l'islam la ñu am xam ngeen ne l'islam du turu kese tudd Umar rek tax na ñu ne waa ji jullit la bil ismi faqat islam du turu kese islam pas-pas la li ngay fas ci sa xol itiqaad bil qalb waaye ak amal est-ce que ab jullit ñeme naa toog yor bigam naan yàlla dafa juum ci aaye sangam ya nit ñeme na ko ab jullit ñeme naa ne yàlla dafa juum am na ñu ne woon ñoo xam dañ leen ne woon ñoo leen guerre rek ñoo leen ngeen xeexi jihaat ñu ne naaj bi daa tàng alxuraan bi mu wàccee dana yéen ay yéefér ngeen ñeneen ñi dañ doon moke yenn ay aaya yàlla ne leen abillahi wa bi ayatihi kuntum tastahzi'un la tastahzi'u qad kafartum ba'da imanikum ah yàlla ak ay aayam ngeen di moke ñu ne ñun doon doon fo yàlla mu ne jarul ngeen di wax yéen ay yéeféer ngeen ginnaaw ba ngeen gëmee yàlla tey ay yéeféer ngeen kon ki taxaw yor bigam bind téere yemu ci mu génn tale di woote débat ba pare am ñeneen ñu koy aar bu yeboo yéen julliti Sénégal ngeen taxaw kenn du wax sax julliti Sénégal ndax baat boobu sax njuumte la ndax Sénégal moom dafa mel ne amul jullit gis nga lii waa ji wax tey bu ko waxoon ci benn tariixa mu ne sëriñ sàngam nangam lan mooy xew ku nekk fi nga toog tontu la su waa ji ne woon sëriñ sàngam dafa juum wala li mu wax amul danañ toog ñaari at di régler problème boobu am na benn ilimaan bu doon xutba daaw xaw ma daawaati jéeg ci benn jàkka ci jurbeel ci tamxarit mu ne tamxarit liñ ciy def yëpp bidaa la kayit yooyu ñuy bind di ko lekk ci cere ji sax bidaa la gars yi ne sëriñ diw lay wax parce que sëriñ diw moo moo moo wax nañ def loolu ñu dem ne dañuy taal jàkka ji sotti ci jàkka essence teg ci pono taal jumaa ji nga loolu li may wax nii du ay léema yéen ñëpp gis ngeen ko dégg ngeen ko biñ demee ci procureur xam ngeen procureur lu mu wax pour ñu aar jàkka ji aar waa ji dafa ne changé leen langage xam leen li ngeen di wax ah waaw léegi waa ji lu tax waxu ko ñu waxuñu ko changé langage bal au contraire dañ ko booleeg ay ay garde léegi ñu koy garde war nañu laaj suñu bopp hal nahnu muslimun est ce que nun ay jullit lañ est ce que nun ay jullit lañ kañ la ñuy am lu nu naqari bu nu waxee yàlla dara dara du naqari bu nu waxee yonent yàlla muhammad dara du nu naqari suñu waxee quran dara du nu naqari suñu waxee keneen ku dul yàlla wa ida zukira allahu wahdahu izmazzat qulubu alladina la yuminuna bil axira wa ida zukira min duni fa ida hum yastabsirun yàlla nee na li jaaxal li ma jaaxal daal mooy suñ ma waxee man kenn ñépp ne tekk mel ni ku liw suñ waxee keneen ku dul yàlla rek ñépp jóg loolu yàllaa ko wax du man maa ko wax de loolu sunu borom moo ko wax wa iza zukira allahu wahdahu mu ne izma azzat dafay lemu qulubu allazina la yuminuuna bil axira waaw xol yi lemu bañ wa iza zukira min dunihi allahu akbar buñ waxee keneen ku dul yàlla nga gis gaa yu tëb nga dégg ñu ne man buñ ma waxoon dugal ci teen gi sax ma dugg est ce que ñun ay jullit lan ana sunu ngëm ay na imaanuna ayuha al ahbab borom bi tabaraka wa taala mu ne wa kazalika taarradu lil waxyi alquran bi ñuy wax noonu lañ ko attaqué wa ida tutla alayhim ayatuna qalu samina law nashaau la qulna misla haada in haada illa asaatiru l awalin bu yonent bi taxawee jàng alquran ba pare gaa yi déglu lu ñuy wax ñun de dégg nañ waaye bu nu neexoon ñu wax lu mel nii alquran moo ko wax suñu jógee ñu dem suratul an anfal aya 31 borom bi na wa ida tutla alayhim ayatuna bu ñu leen jàngalee sama aaya yi qaalu samina ñun de dégg nañ après bu ñu déggee lan lañ war a def dañu war a jëfe wala law nashaau la qulna misla hada in hada illa asatiru l awalin ñu njëkk ña lii la ñu waxoon kon seen sët yi bu ñu waxee lii tey du mbetteel waaye xam ngeen lu ciy problème mooy waa ji taxaw tey di corriger yàlla ak yonentam ak Quran ab professeur la université day jàngal suñuy doom kii bu jàngalee suñuy doom ba suñuy doom màgg lu ñuy def ñoom it kon du mbetteel kenn ci doomu jullit yi du mbetteel kenn ci julliti Sénégal kuy dugg ci université bii tudd université Cheikh Anta Diop nga génn ëllëg lakk kaamilu Quran du mbetteel laa wax parce que lan leen fay jàngal lu mel noonu kese la wala la ci ëpp lu mel noonu la franc-maçonnerie nu ñuy ate ay turu is is jullit kese waaye fekk dafa ate gëmul yàlla xamul yonent amul diine mulhid mooy zaar yi te dafa bari tey ci biir réew mi ay nit yoo xam ne seen yoon ci lislaam dëkk nañu ak benn waaye boo xam ne borom alal la kenn ci bokk julli amaana mu ngi ci jumaa ji sax mos na ko ne yow doo dem màkk mu ne lu ma fay uti lan laa fay uti nii la ko waxee lu ma fay uti allahu akbar kuñ ne doo dem màkk ndax am nga alal mu ne lu ma fay uti kooku du mbetteel ëllëg buñ ko waxee wax na ci lislaam dara te kat loolu rek lañ loolu la wax de parce que loolu lañ ko laaj suñu continuer woon wax ji dina wax loo xamante ne taal nam réew ixwatal iman borom bi tabaraka wa taala nee na xoolal li ñu wax ci quran am yaquluuna aftara bal huwa alxaqu min rabbik litunzira qawman ma ataahum min nazirin min qablik laallahum yahtadun yéen da ngeen naan alquran yonent bi moo ko créé moo ko sos ay fen yu mu dajale la loolu ngeen di wax xanaa xamu leen ne bal huwa alxaq alquran mooy dëgg yàllaa ko wàcce jox ko muhammad li yunzira qawman ma ataahum min nazir ngir mu waar ay nit yoo xam ne yonent musta wàcc ci ñoom laallahum yahtadun ndax ñu jub ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر آية بيغاني لواج septième siècle yàlla mu ne leer na ma nañ wóor na ma man yàlla yéen a ngi noonu waaye di bis dina ñëw di ngeen ne nit moo ko jàngal kii dañ koo jàngal loolu lan la waaj wax yonent bi dafa jàng loolu moo tax aaya bi mu ñëwee ñu ne ko iqra iqra mooy liiral kon mën na liir du loolu la waaj wax nee na dañ ko ne liiral kon kuñ ne liiral ça veut dire que mën nga liir nit ñi ñoo naan jàngul mais dafa jàngoon te ku jàng quran jàng sunna jàng siira xam na yonent bi nabil umi yàlla moo ko wax ma kunta tadri mal kitab wala al iman aaya la yàlla huwa allazi baasa fil umiyina rasulan keroog ci sulhu hudaybiya bi yéeféer yi ñëwee toog ak yonent bi ñuy négocier pacte bi dañ ko ne bindal mu jël kayit ali moo doon bind mu ne ali bindal bismillah Suhayl ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko dindil allah dindil allah mu ne ko lu tax mu ne bu ñu gëmoon allah du ñu toog fi yow di signé ñun gëmunu yàlla dindi ko yonent bi ne ali dindi ko ali ne man sama loxo du bind bismillah ma koy dindi abadan du ma ko dindi duma ko dindi de yonti na ko ali dindi ko mu ne ko duma ko dindi yonti na ali jalal sama baaraam tegal ci turu yàlla bi nga won ma fu mu nekk ma dindi ko yonent bi teg daal di dindi allah bi allahu akbar kon kay wane ne ne jàngul lu tax waa ji wax li ay kilifaam la bëgg a kontaan loo comme nee na moom sengoriste la ixwata al iman wa kadalika taarradu lil muminin noonu ñu ko waxee ci yàlla wax ko ci yonent bi wax ko ci quran noonu lañ ko waxee ci jullit yi xam ngeen ne franc-maçonnerie li ci nekk jullit yi ci bokk duñ la wax foo nekk rek del weddi waaye dañ lay sant année bu nekk rek defal benn kufru bu garaaw année bu nekk def ko defal benn kufru misaal ñu ne année bi yow da ngay puub ci Qur'an da ngay dem àll ba ci Qur'an yow defal lool yow rek lañ sant ñu ne kii yow da ngay dem ci jàkka nga saw fa noonu lañ leen di def kenn par kenn yow année bi rek nga koy def bu année bi jotee nga renouveler loolu mooy contrat bi ñi xam nga Sénégal dañoo xamul ku xam ñii xam ne ñun bu nu xamoon ñii fu ñu jëme danañ teel a jóg waaye dañuy toog rek ñun di wax bal sax jullit yi bu benn événement bu amee soo koy wax am na ñoo xam dañu naan est-ce que dëgg-dëgg réellement am na barki démb sax gis nga ñu ne non waa ji tuub na nee na nañ ko jéggal nañ ko jéggal kan la tooñ bañ koy jéggal am na yoo xam ne bu ko nit waxee ci lislaam dañ koy rey mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala noonu ñu ko waxee ci yooyu lañ ko waxee ci jullit ñi wa kazalika fatanna baaduhum bi baad li yaqulu a haulai manna allahu alayna min baynina a haulai manna allahu alayhim min baynina alaysa allahu bi a'lam bi shakirin borom bi nee na danañu xool way gëm yàlla yi ñu leen di ñee di leen soxore naan ñii ñoom la yàlla gënal ci ñun loolu du dem inna allazina ajramu kaanu min allazina amanu yadxakun wa ida marru bihim maza yafaluun yataxaamazuun wa ida inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin li aaya la yoo xam ne yàlla wax nañu ko depuis septième siècle ñun ñuy nelaw wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yarudduukum an diinikum in istataaw ñu def na waa ji bu génnee ab téere téere bi ñu jox ko doomu jullit yi ñu koy jàng te ñépp yemuñu xam-xam ñëpp yemuñu formation ndax xam ngeen ne julli di Sénégal amuñu formation da ngay juddu am ñetti at ñóbbu la jardin d'enfant nga jóge fa ñu yeg ñu yóbbu la école élémentaire nga jóge fa dem se se euh, secondaire nga jóge fa dem université fii nga jaar yëpp ana formation bi beneen bi mooy nan lañ lay formé jógal julli julli nga nga ne waaw julli naa julli ngeen waaw yeex na loolu rek ana abdallah ana xale yi julli ngeen ñu ne julli nañ ñu ne waaw loolu loolu kese rek julli ngeen julli nañ yeex na koor gi ñëw na de da ngeen woor de est ce que yéen a ngi woor woor nañ ngoon jotee ngeen dog loolu mooy formation xale yu mel noonu nag tey dem ba université ñu jàngal leen loolu lan la ñuy def mooy weddi yàlla la ñuy def jaxran boole ci di leen financé di leen jox alal mbokk yi bu nu nax suñu bopp études yi mujjee génn sondage ñuy def franc-maçonnerie en Afrique li mujjee génn mooy ñeenti dëkk yi ñoo jël pee ci Afrique Sénégal Mali Côte d'Ivoire Burkina Faso ñeenti dëkk yi ñoo jël pee ci franc-maçonnerie te lan lañ wax mooy cadre yi cadre yi ndaw yi ñoo ci dugg cadre yi ndaw yi mooy lan mooy ñu ndaw ñi nga xam ne ay diplômé lañ nekk université ñu ndaw ñi ñoo ci dugg ñoo ci ëpp lu ko waral mooy alal ji xaalis bi ku dugg ñu financé la xale yi ndaw commencé ay 4-4 ci tali yi ay R plus 4 ñoo xamante ne seen i maam seen i baay liggéey nañ ba dee mënuñu am sax portable lu nekk la ñuy doxantoo ci kaw suuf réew mu mel noonu nag ku ci jógul ci sa njaboot bisa ngi ñëw nga yee sa doom fajar jógal julli mu wax la la waa ji waxoon fëgg bunt ji doom ji dem jàngi ñëwaat tëdd di nelaw fajar bàppa ji fëgg ko abdallah abdallah mu ne ko lan la mu ne ko jógal ñu julli mu ne ko laa ikraha fi diin aaya alquran la ko indil ne ko laa ikraha fi diin diine kenn du ci forcé nit allahu akbar papa ji fëgg bunti ba bu ko dajji ne ko qu anfusakum wa ahlikum naaran alquran la ko wax mu wax ko alquran tontu ko fegal leen seen bopp safara fegal seen jaboot ku fegalul sa bopp safara nag fegal sa njaboot ëllëg di nga bokk ci ñooñu yàlla naan waqifuhum innahum mas'ulun aqulu ma tasma'un wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله مبكيتي الله سبحانه وتعالى إذا كان الأمر كذلك فقد يبادر إلى الذهن سؤال وهو لماذا يكرهوننا ولماذا يسبوننا مع ما يتصدقون من حرية الاعتقاد وحرية الفكر وحرية الشخصية وغير ذلك من الحريات المزعومة bu fekkee mbir mi nii la demee war nañu laaj suñu bopp ñii lan lañ ñu bañee lu tax ñu bañ jullit yi xoolal jullit yi tey ci kaw suuf ni ñu leen di sonalee allahu akbar bu ngeen doon xool sax internet ni ñuy ree musulman wu centre Afrique seen yaram day daw te kenn du wax kenn du wallu amul kenn ci ci àddina bi tey kuy wax ni ñuy def musulman yi nekk centre Afrique te xoola waa Boko Haram bu ñu defee lenn rek ñëpp jóg dégg naa sax benn sëriñ bu doxee Kaolack ba Dakar bi mu ñëwee lu mu doon wax maa ngi wax waa Boko Haram nan bàyyi li ñuy def Dakar Serigne bu doxee Dakar ba Kaolack ñëpp di xaar mu wax ci mbir mi comme looloo taxoon mu dox mu ñëw tourner table bi yóbbu ko feneen bu fekkee mbir mi lii la war nañu laaj suñu bopp ñii lan la ñu bañee lislaam waaye nag dëgg la de ndax innahum yarawna anna al islaama huwa al jidaar al wahid amaama al mus istimar colonialiste bi dafa gis ne li tax mission munta dem mooy lislaam tubaab bi tubaab yu ñuul yeeg yu weex yi dañoo gis ne li tax mënuñu réussir lislaam moo leen baaree qaala livrance barawaan inna al islam huwa al jidar al wahid fi wajhi al istimar al orobi benn waay bu tudd Louis Brand mu ne li tax Europe xeex bi muy xeex l'islam mënta dem xeex bi muy xeex Afrique mënta dem mooy l'islam moo tax moo baare africains yi moo tax mënuñu nekk ay chrétien ak ay yahud l'islam moo tax wax na dëgg beneen waaye bu tudd Galatson mooy ki ñuy tox fii cigarette am yenn saa nga gis jullit bu dugg ci bitig ne jaay ma Galatson waa jooju ñu tuddee cigarette bi déglu lu mu wax moom nee na ma dama hadha al quran mawjudan fi aydi al muslimin falan tastatiu oroba assaytara ala sharq nee na fekk alquran bi jullit ñaa ngi ci jàpp Europe munul dara màkkatal mukarram lan lañ jublu ci sharq mooy foofu la jullit yi ëppee mooy màkk ak li ko wër fekk ñu ngi ci quran kenn du leen munal dara moo tax colonialiste bi su ngeen gisee muy attaqué quran alquran nangam alquran nangam di yàq bëgg nit ñi bañ a xooli quran parce que quran moo tax demul amaana fii ñu nekk di julli jumaa am na benn mbokk boo xam ne dafa tuub fan yële passé coow li juddu seen kër pour wax leen l'islam li muy def nit coow li juddu seen kër coow li juddu seen kër ba ñu ne ma man comme maa ko tuubal foog ma ñëw yaayam ne foog mu gis ma ñu def benn délégation dem waaye dam leen waxoon ne duñ ma mën a gis lu dul seeni kër dëkkandoo du ñu dem seen kër waaye kër yi ñu sës am benn mbokk buy ñëw fii amaana mu ngi ci jumaa ji këram la ñu dajee ndax moom moo taxoon ma xam xale boobu ba muy tuub bi ñu demee ki bëggoon jataay bi am moo jël kàddu bi ñu paree yaayu xale bi jël kàddu ne man sama doom du tuub du hasard moo tax ñuy pentiraat église bi ah di ci bind ñun ragaluñu de tiituñu loolu lañ ci bind mois d'avril ak mois de mai tubloo naa ñaari nit keneen ki yaay ji bi mu jëlee kàddu mu ne man sama doom du tuub bugguma mu tuub ndax ñu nangam li ñu nekk lañ gëm du tuub du tax muy tuub mu paree tante ji daal di jël bu mu paree ma jël man leen man ñaari kàddu rek laa am benn bi ci islaam la benn bi aada la ma wax leen li islaam wax wax leen ci aada li mu waa ji ndaw si waxoon jarul répété bi ma paree ma ni xale bi léegi sa yaay nee na doo tuub yow la ñuy déglu xale bi bu mu ne asalaamaaleykum mu ne yaay yow yaay sama yaay yaa ma jur yéen ñi ñëpp sama famille yéen a ngi nii toog yéen a doon wax ne maa fi gën a bon xol fii ci kër gi waaye xam ngeen ne ba ma duggee ci lislaam ak léegi sama xol bi dafa leer yéen ñëpp ne ngeen maa fi gën a baax allahu akbar lislaam a nga noonu yéen ñëpp xam ngeen ne balaa may dugg ci lislaam koñ bi maa fi gën a bon ñëpp wax ñëpp dañ ma ragaloon waaye bi ma duggee ci lislaam ak léegi sama xol bi dafa leer ñun xamuñu li ñu am moo tax waaw xamuñu li ñu am ñun bu ñu xamoon li ñu am kon du ñu bàyyi gaa yi ñu koy yàq di ko njëkkante di ko rajax rajaxee ñu toog di xoole xamuñu li ñu am loolu moo tax mënuñu ko jàpp topp ci ay caaxaan tey li ñuy tuddee l'islam fii ci mbedd yi di yuuxu fi ay sabarak di dof dof lu fi ci stade yeeg ci lamb yi ñuy rey nit ñi ci stade yi ak lamb yi julli di toog fii di nelaw xamuñu li ñu am allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ala ittibaai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinaabi allahumma ya musabbitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله